acca salaamaaleykum mbokk internet yi safoo di seetaan seen site internet Ngoy TV ñu ngi leen di bëggee di leen ziar bu baax a baax a baax dem nag dañoo gis ci eh, youtube bi ah information combat bi nga xamante ni bët eh, nañu bari ah sérieusement ndax eh, sox ah ak Jackson sérieusement di ay xele yu mën a bëre ay xele yu am mbooloo ay xele yu doon daanaan man mi di wax ak yeen bet na ma ndax sopp bi mu mujjee daanu dafa ne woon bay na lam mais nag euh, nit lu nekk sa direct mënoo ko bàyyi sox dafa bokk ci lam mais tey dañuy féliciter encouragé waat sox pour mu ñëwaat bokkaat ci lam waat ak jackson tuuti quoi ndax jackson ku ne xam na ne doomu géejawaay la te ndaanaan la te waa dañ ko bogg trop dañ ko fonk trop te kafewuñ ko te xele la bu mën a bëree am doole nag sérieusement mais combat bi combat bu doy waar la combat bi nii combat bu doya doy doy waar la ci ñoom ñaar ndax sox nag dafa tollu woon dynamique boo xamante nii dafa waroon nii waroon na fekk mu egg fi ñoom Sa egg tey ñoom Reug Reug fi mu egg tey mais ay jafe-jafe yu ndaw moo ko kale ba mu reculer waat berewaat ak Jackson Jackson itam di xele boo xamante nii yéeg rek la boog pour le moom yaakaar na ne instant nii kenn waru ko mën a téye dafa war ay moroomam tey fi ñu egg moom itam moom Jackson mais combat bi sox wax waru ci combat bi dara waru ci combat bi lu dul jëf su fekkente ne bëgg nga dellusiwaat ci sa place nag ci làmb dara dara waru la ci combat bi lu dul jëf Sokh danga nekk euh, dëkk Pikine waa Pikine fonk la lool bëgg la trop itam ba tey fu ñu ne Ama Baldé ne Boy Niang ne ne Sokh te nga nekk fa ak ay say mag yoo xam ne te yaa leen octobre moo tax li lay yàqal man ci sama xalaat laay wax quoi bokk na ci succès bi nga gaaw a am teel a def sa bopp VIP naam VIP nga sax mais dafa teeloon ba ci say waxin dafa feeñal trop quoi moo tax kobaa bi nii man su ma la ci doon conseil duma la ci conseil dara dara dara ci wax bàyyil wax ji yépp ak Jackson yow xam nga la lañ lay doy suuru làmb ja nga appliqué wane ka ne sox bokkaat na ci làmb ba tey loolu nga war a appliqué pour le moment waroo appliqué leneen sox pour le moment bokkaat na ci làmb loolu nga war a appliqué Jackson itam dafa war a ñëw prouvé ne leen fa ma nekkoon dama bëgg yi ndax Jackson bu daanee sox tey digganteem mak ñoo ak ak Fara mo daanoon sox day catégorie boobu la jëm kon combat bu doy waar combat bu nara neexal yi nii combat boo xamante ku yéex rek mën na ko ndax Jackson nag dafa mën a bëre boo gisee da koy xet mu ngi mujjee jóge ci Ahmed Dem su ma juumul gis ngeen ni mu def Ahmed Dem sox itam gis ngeen ah sérieusement muy combat boo xamante ni nii ah, combat bu neexa neex ci ñoom ñaar xele bu ci daan da ngay yéeg mais ci soxna la gën a daasere moom pour le moment combat bi moom ci soxna gën a daasere ndax soxna dafa teg leen defet ñëwaat jalaat xele boo xam ne day dem nga bëgg ko jël bëgg ko fereene du yomb ak xele boo xam ne nii ay ko xam waa géejuwaay dañ ko yónni di ko der bi géejuwaay pikin moom yàgg na mais nag <laughs> mooy loolu en tout cas sox combat baa ngi noonu sa combat la liggéeyal bay wax waaw communication bu bari bi moom su ma doon yow moom dama koy teg ci suuf jëf nag vero sox bu njëkk ba ba ngay daan naan ni gars nga àndiwaat boobu est-ce que ay comprendre man li may wax chaque jour rek mbir mu ndaw même bu fekkente ne yow sa waa gox say supporter dañ la def VIP yow bañal bu egg roi des arènes doo nga nangu sa VIP mbër lu teel a nangu VIP te sox loolu man dama ko xaw a seetlu ci yow tuuti quoi danga xaw a seetlu ko ni danga teel a def sa bopp VIP loolu nag dara waroo ko lu mbooloo bi la topp la quoi mais ndaanaan nga champion nga am nga fi takusaan bu ne nag bu ne am nga ko fi sérieusement daanu rek moo tax tey nga Biraat Jackson mais tey tey tey tey bu doon sa ñaari combat yi nga jóge yépp yow ak Fara ak kii am nga ci victoire kon Sa Thiès Reug Reug ku ci daan ak ku ci daan yépp war nga mën a bëre ak moom xam nga bu baax nay may wax voilà mu ngi noonu combat la combat boo xamante nii sérieusement combat bu neex lay doon ah combat lay doon ci diggante ñaari xale yi Jackson ak ak Sokh voilà acca ñu ngi nuyu waa Pikine bi yépp ah di nuyu waa Guédiawaye yépp itam ah di nuyu waa Bentali waa Grand Dakar waa HLM waaw waaw ko ñaay ah di bëggee ñëpp ah di ziar sama copé sa Thiès États-Unis maa ngi leen bëggee sama gaañ ah yéen ñi seetaan Ngoy TV yéen ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen big up di leen ziar gars yi nekk Italie Espagne Amérique ah dinaa ñëw fan yi bu koor gi jeexee damay vacances yi damay dem Espagne jaar foofu dem Italie Amérique après doog a wóñeeku jaar France doog a ñu siwaat gars yi ñoo koy demandé ñoom ñoo ko bëgg ah naa leen ko defal incha allah rabbi nuyu naa leen bu baax a baax a baax bu leen fàtte nag di abonné ci Ngoy yi képp ku bëgg di seetaan seetaan ñu si ñu si ñu internet di koy di ñu ngi lay wax lay wax nga abonné bos bos notification bi laal ko laal cloche bi ndax vidéo bi ñu wax di bu ko defee bu ko defee ñu dugalati ñu dugalati nga bokk ci nga bokk ci kase taay kon ñu leen di woo ngeen ab ngeen ab ngeen di 因为。